Bienvenue sur Salam Vision. Thank you. maa nga jëm Parcelles Assainies unité 21 en face terrain basket bi dem seeti yi Ahmadou Bassirou Ndiaye Ngéraan borom bi may ko lool ci xam-xam xam-xam boobu nag mu ci dimbali nit ñi mu daal di leen defaral ñetti ubbeeku yoo xam ni da koy sangoo maanaam mu di ay saabu yoo xam ni am na ñetti niveau boo xam ni saabu bu njëkk bi day def ci yow ubbeeku ba noppi def ci yow protection ndax yéen ñëpp soxla ngeen protection ñaareel bi dafa lay ubbi ba noppi indil la bi nag waaye ñetteelu saabu bi ubbeeku bu leer nañ ba noppi nag àndandoog li nga xam ni liy dugg sa loxo day des ci sa loxo di toog ci sa loxo kon Ahmadou Bassirou Ndiaye li la yàlla may jërëjëf ci ni ko bokkeeg jaam yi rawatina nag ñi nga xam ni dañoo am problème mu njaboot nga xam ni nag ay góor lañu am nañu kàttan waaye mënuñu am doom mu dimbali leen ndax léeg góor ak jigéen dinañu nekk ci sëy duñu am doom ñu ne rek ku jigéen ki la fekk yow ku góor këyit daa war a faju kon ñëw leen seet si Ahmadou Bassirou Ndiaye mu jaarale leen ci produit boobu muy wax Nasirullah Nasirullah nag dina la traité bu baax yow ku góor ki nga xam ni koo jege rek di nga ca mën a am njaboot Ahmadou Bassirou Ndiaye Ngirane Parcelles Assainies unité 21 janoo ak terrain basket bi téléphone 76 589 93 67 wala 78 469 24 30. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammad nabil umi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman auzu billah bismillah inna waliyallah jërëjëfe borom Tuubaa Xaadimu Rasuul jaraw lakk maam Cheikh Ibrahima Fall mbokk internet yi nga xamante ni yéen a taamu di seetaan seen télé bi nga xamante ni mooy Salam Vision lëkkaloo tey ji ak li nga xamante ni mooy El Bachir TV ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay kenn ku ci nekk tey ñi nag ñu ñëw seet si sunu jëwriñ sunu waajur sunu xarit sunu sëriñ muy Mouhamadou Al Bachir Ndiaye bëgg waxtaanee waat ak moom lenn ci xam-xam waaye rawatina li nga xam ne mi ngi koy dimbalee jaamu yàlla yi nga xam ne ñi ngi koy bàyyi xel saa ne waaye itam ci gëstu bu yaatu bi nga xam ne mi ngi koy gëstu ba bés bu ne mi ngi fexe di génne loo xamante ni njëriñu askan wi képp lay doon macha allah moo tax ñu seet ko tey bëgg a waxtaane moom li ñuy def rek dañu koy nuyu siyaar ko dalal ko ci biir jotaay wu faj sa jàngoro bii nga xamante ne askan wee ko moom àdduna wërngal këpp ñoo ko moom kon Mouhamed El Bachir ñi ngi lay nuyu ñi ngi lay ziar waaye ñu ngi lay dalal ci biir jotaay bi naan laan salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah alhamdulilah rabbil alamin allahuma ichani taxta janaahi ismika alazim al azam li dafxi sadaidi wajanil arda maida wa kullu man alayha rafiqan wa muhibban wa mushaqiran wa mutihan bi barakati fatihatil kitab wa xurufiha cheikh bi ñu ngi lay nuyu bu baax di la fay di nuyu mboolem sénégalais yëpp di dellusiwaat di teew ci sa émission bu am solo bi ngir yaatal fi xam-xam ak leeral ci lenn ci ay mbir yoo xam ni ay gëstu moo ko wane ñu bëgg koo jariñee doomu adama yi kon ñu ngi lay déglu. jërëjëf Mouhamed El Bachir macha allah ci nuyoo bu am solo boobu macha allah yal na yàlla boole defal ci askan wépp wala képp koo xam ne mi ngi seetaan image yi rek suñu borom defal ko ci tawféex defal ko ci dégg defal ko ci topp ba njëriñ mën cee juddoo ci kàttanu suñu borom euh, fi ñuy tàmbalee rek gannaaw nuyoo bi euh, lan moo waral Mouhamed El jafe bi ci njëkk ñaareel bi itam mooy mosumaa ñëw ci daara ji ba dajante fekk nit liggéey bi ngay liggéey naka nga koy liggéey ak lu waral bëggoon nit ñi di fi daje loolu itam bokk na ci li nga xam ne bëggoon nañu bëggoon nañu la koo laaj macha allah. waaw kay bi loolu tamit euh, li ko waral mooy euh, comme ñun yàlla daf ñoo nattoo bëgguñoo dox ci dara loo xam ne dafay waral ay tappale te it li ñuy liggéeyee tamit bu du woon doomu aadama yi nga xam ni dañ ñu ci sañaxal pour bëgg ñu wane ko. yàlla mën naa dogal feeñ gi mën naa ñàkk ndax ñu ngi ciy bëgg a ay at yu bare bare bare ñu ngi koy def waaye soo gisee nag euh, loolu am mooy liggéey bi ñuy liggéey àndut ak mbooloo mu bari waaw suñu liggéey àndut mbooloo mu bari ëpp na ay doomu aadama yoo xam ne ay téeméeri téeméer may jëflante ak ñoom ay at ñaari at ñetti at te duñ gisante waaw loolu yàlla dogal na ko waaye doonul loo xam ne nag euh, bëgg a wane suñu bopp moo tax ñu feeñ dafa am mbir yoo xam ne tey soo ko bëggee jox doomu aadama yi faaw nga feeñ rek pour wax leen lii lan la ndax dañuy soxla woo xam kan mooy defar li waaw waaye bu doonte ni mbirum feeñ rek wala mbirum siiw rek yàlla mën naa dogal liñ ci bëgg ñu ngi ko ci am te kenn gisuñu waaye nag dafay mbir dafay toll foo xam ni nit ki même suy jënd dara di ko jëfandikoo bëgg naa xam ni fan lay jóge ak kan moo koy defar dañ kumpa boobu nag moo tax ñu feeñ ngir leeralal leen yooyu waaye li ñuy liggéey àndut ak mbooloo mu bari ndax li ëpp ci suñu liggéey dafay laaj wéetaay Euh, am na ci loo xam ne sax taxuñoo jóg tey mu jëm ci bind ak maas loolu moom bu ñu sañoon duñ ko waxtaane ci abrajo wala tele waaye li nga xam ne nag moo jëm ci mbir yi ñuy liggéey bagage yooyu yooyu danañ ko mën a waxtaane leeral leen nit ñi leen lu ci nekk nan lañ koy jëfandikoo ak euh, yan gëstu lañ ci am ak euh, ku ko jëfandikoo lan la lay jariñ jërëjëf Mouhamed El Bachir ci leeral bu am solo boobu wax dëgg yàlla ndax jamono moo ni moom buy buy buy jëfandikoo say bagage euh, dina dem ba yàgg mu kii may jox bagage yi moom mooy kan ndax ñi ngi ñi ngi jot ci bagage yi macha allah adduna bi yëpp ñi ngi sant ñi ngi gërëm di la ñaanal waaye ba tey ji ñu bëree bëree bëri bëri ku ñëwul ba ci ba ci daara ji jëflante ak yow mën na mën naa bañ a xam kan mooy El Bachir moo tax nii nga def itam wax dëgg yàlla ñoo ngi la ci a baax dafa doon lu am solo bokk na ci ni ko waxee léegi gëstu bi nga xam ne yaa ngi koy gëstu bay indi ay leeral di gëstu ci plante yi maanaam feddaliwaat waxi suñu borom ji mu ne woon mbooleem jàngoro bu wàcc ci daaru dunia la koy saafara mi ngi ci wet gi yow danga nga taxawee damaa gis ci bi ma bi ma la seetloo dama gis ne da nga da nga pas-pas boobu dafa ne ci yow te bis bu ne ngay wan jaami yàlla yi ne leen loolee du dañ du sikki sàkk ba tax na mbooleem li ngay fexe yaa ngi koy fexe ci palant yi ci alxuraan aku gëstu bokk na ci ñetti saabu yi nga xamante ni moom nga mujj génne te ñu bëggoon ñu waxtaanee ko. Ah, ok loolu it dafay laaj rek gëstu maa ngi koy wax barki dem sama benn xarit ma ne ko suma sañoon xale yi nga xam ñoo nekk ci internet bi di woote xam-xam ak di def ay karaama ñu tege ko ne te mu gëstu ndax doonte benn nit bu nekk mboolem ni doon ay seen Sénégal bu doon kenn nit ku nekk gëstu nga ba indi benn mbir kii indi luy faj buñ buy metti kii indi luy faj tànk buy metti kii indi luy faj bopp buy metti kii indi luy faj bët buy metti dañu am benn pharmacie boo xam yow soo soxlaa dara mën ngaa dem ci pharmacie bi jënd loolu jëfandikoo ko te doo xam sax ku ko liggéey mm-hmm. man foofu laa bëggoon xam-xamu Sénégal yàgg fa te foofu laay woo tamit sama moroom yi nga xam ni mm-hmm. dañuy naaw ci internet bi mm-hmm. wala boog ñuy gas suuf di ci dugg wala boog ñuy dugg ci sawara te duñ lakk wala ñuy soppi xaalis yooyu yëpp boo koy def te mënuloo am résultat du karaama man karaama dëgg li ma ko jàppe mooy nit ñëw indi benn soxla wan la ginnaaw bu demee wax alhamdulilah man loolu mooy sama karaama loolu laa jàppe karaama moo tax maa ngi woo xale yëpp gëstu du wees te ku ci dem gëstu ji it ba xam dara lu mu néew néew doon te benn la nga defar ko ba mu tege ci aw yoon nga man koo jox doomu aadama yi jëriñoo ko boo ñëwee dara du la raw waaw xam naa ay nit yu am njëriñ nit yu am solo yoo xam ni nekkoon nañ fi di jëfandikoo xam-xam dem ba mu yàgg ñu yëg nii soxla loon leneen ñu bàyyi ko fi wan ko ginnaaw dem gëstu ji te biñ jël siwaatee dara dara rawu leen waaw xam-xam moom mooy li nga xam ne su la ko yàlla cëralee nga am ko jeex na ci àdduna bu dee wërsëg ngay wut da nga ko am bu dee xame ngay wut da am bu dee mbooloo ngay wut am ñun nag yàlla nattoon nañu yooyu yëpp wutuñu ci dara li ñu wut rek mooy lu jëriñ doomu aadama yi loolu rek moo ñu tax a jóg ndax ñu ñu xam te di ñu seetaan xam nañ ni am nañ métier ci loolu la yar sax ndax gëstu pour mu rafet il faut nga am métier waaye lu ñu mus a am ci ni ñuy liggéey tamit ñu ngi ko defaat ci xam-xam waaw ñun am nañ métier boo xëyee amoo métier toog di xaar nit koo xam ne dafay ñëw pour indil la dara lu mu la defloo ci lu bon nga def ko waaye bu la yàlla wërsëgalee na nga am foo mën a jariñoo mën ngaa sellal sa liggéey loo nit sant te neexu la nga lànk moo tax bu ma neexee dooma jot bu ma neexee dooma gis te damay dund parce que am naa leneen lu ma mën a lu bokkul ak lii waaw kay léegi nag bu dee ci wàllu gëstu boobu euh, lu jëm ci wàllu saabu yi dafa ay niveau am na niveau un bu dee niveau un bi ouverture et protection la tudd moom daf lay ubbi ba pare aar la su ñuy wax nag ci ñi xóot dégg-dégg kaaraange yàlla rek moo ko yor ubbeeku yàlla rek moo ko yor waaye nag ni yàlla binde doomu aadama am na luy taxaw ci kanamam di ko gàllankoor loo xam ne yoonu yàlla newu ci doomu aadama bi la noonu lay doon wala moroomam ngir loola nag mu mucc ci il faut mu def ay effort saabu bi loolu moo tax ñu indi ko am na ay jaami yàlla yoo xam ne tey soo leen joxoon dara ci alxuraan dañ koy bëgg a sangoo ci douche wala ñu jëfandikoo ko foo xam ni warul wala ñu wala duñ am fuñ ko jëfandikoo loolu moo tax ñu indi li nga xam ni mi ngi jóge ci ay xeeti garab yi ñu yàlla wërsëgalal mm. ndax garab gu mën a doon mm. jëriñul lekk rek garab gu mën a doon jëriñul ker rek jëriñu garab gu mën a doon jëriñul mat rek mm-hmm. waaw garab dafa am yu bari yu ci yàlla dëxëñ yoo xam ni dafa am saayir am mm-hmm. lii nag ci birum saabu yi ñu ngi ko jëlee ci ay gàncax yi nga xam ni moo am ci suñuy réew mm-hmm. ak yeneen yoo xam ne sax amul ci suñu réew mi ngi ci yeneen réew yu ñu jige ndax dëkk bu ne dafa am ay garabam euh, ouverture protection nag ubbeeku rek lay def moom ak kaaraange bu ñu nee ubbeeku nag lépp lu jëm ci lu doomu aadama bi di wut kii wut borom kër te amu ko mi ngi ci kii wut soxna te amu ko mi ngi ci kii liggéey te amu ko mi ngi ci ki nga xam dafay wut uh, tamit am koom ak lu mën a doon amu ko mi ngi ci ki bëgg a passé examen wala yeneen ak yeneen mi ngi ci ki nga xam ne tamit uh, protection lu jëm ci wàllu cat mi ngi ci lu jëm ci gàllankoor boo xam ne da jóg rek di dem nga xam ne kenn teguloo ko dafa nekk ci mbedd mi rek di xaar ku mu topp wala ku mu yàqal wala ku mu gàllankoor mi ngi ci ndax boo muccee rek yàlla musal la ci lépp waaw kon nag li nga xam ne mooy ouverture et protection mooy niveau un bi waaw mu doon lu am solo niveau un protection ak ouverture te léegi li ci doy war mooy saabu rek la. te it ñi nga xam ni dañuy jëfandikoo saabu bu fekkee saabu bi nga yor du gàmm boo xam ne dalay jariñ dara bu la neexee mën nga koo bàyyi ndax soo xeesee du la ñuulal hmm. soo ñuulee tamit du la xeesal. te it xeeti yi ne ci yaram mu mel ni ay eh, xam wala ay bouton wala yu mel noonu wala yaram buy xesan yooyu yëpp moom dala ciy dimbali te terewul nag mu am njëriñul baatin loo xam ni loolu mënoo koo jënd day xëpp comme saabu yi te boo ci sangoo da ngay set te lépp loo xam ne moo fanaan ci sa loo xam ne cat la boo xëyee sangoo ko mu dañ loo yendoo ci cat bu guddee boo ko sangoo doo ko fanaanoo loolu moom luñ garanti la parce que moom matière bi ñu ko liggéeyee ñoo ànd waaw matière bi tamit biñ ko liggéeyee dañ cee jaxasoog ay nit yoo xam ni Euh, li seen liggéey dëgg-dëgg mooy mbirum saabu ñoom loolu mooy seen liggéey kilifa yu bari ci réew mi ñoo leen koy jaay saabu yi jigéen ñi di sangoo di ko jëfandikoo seen yaram muy mel noonu ñooñu lañ ci waxtaanal ñu teg ñu ci aw yoon xamal ñu ni saabu saabu bii qualité sàngam la produit bii qualité sàngam la ñu doog ñun wut suñ garab def ko ci biir waaw mélangé ko def ko nag ci ay pot yu mucc ayib nga xam ni pot bi rek mën na def yow trois mois wala 4 mois des fois nit di ma euh, ndax prix bi mën naa gën a yomb ma ne ko nag ni ngay demee ci sëriñ yë yëkkati ñaar fukki junni jox ko wala fanweer wala ñeent fukki junni te lam lay jox du jariñ nga mën a am lii sa biir kër te doo gis sax ab sëriñ kenn du xam foo ko jëlee nga jëfandikoo ko sa biir douche te mu lay jariñ la lay doon jariñ moo ko gën dama bëgg nit ñi mucc ci ay nax waaw seen bopp yi ubbeeku man nag ñooñu ñoo ma tax a jog mais nit koo xam ni xañ na xel mi dafa jaxasoo muy wër ñu di ko nax kooku ma taxumaa jóg nit ki nga xam ne ab intellectuel la nga xam ne boppam ubbeeku na xam na ni bi yitte na ni te bëggul ko ko kooku lañ bëgg a jëflanteel waaw te ñooñu it ñoo koy soxla ñoo ko fiy jël si bëgg na mu gën a yaatu bañ gën a xam njariñ te bu boobaa danañ gën a xam ni njariñam yemul ci sangoo ko rek waaw macha allah jërëjëf euh, Mouhamed El Bachir ci leeral bu am solo boobu ndax ni nga ko waxee rek wax dëgg yàlla doomu aadama ci loo xam ne ci ab saabu la boo xam ne gisoo ku la koy jaay tey mu am jot gu toll ni toog nii di la di la di la leeralal ci saabu bi li ci ne ci niñ ko liggéeyee ba pare wax la ne la amul benn effet secondaire bu ci am ndax ay technicien de surface ñoo ko contrôlé ba daganal ko te ñooñu tey jii ku fi jënd saabu ñoo la jaay saabu ci épicerie yeeg marché yeeg fu mu ci mën a doon kon defe naa ne lii mucc naa yëpp da ko wax léegi nga ni ki nga xam ne day dem ci Serigne fay ñaar fukki junni ñun la saabu bi tey ji par exemple fukki junni lay jar nga ni fi ne ndax doo ko gën a wàññi kon day mel ni kon li ngay wax nii bopp ba baaxul wala xalaatul xalaat bu baax parce que dem ci sëriñ jox ko ñaar fukki junni di dundee yaakaar te lii ñun la boo demee jëf gis ndax man kenn du ma nett li li wolof naan tungu ne du teew ñuy nataal man maa jël ma essayé maa mos maa gis résultat billahi lazi laa ilaha wa ma shayib naa nag bi maa alib naa macha allah kon yow sant la gërëm la moo ci warta mooy li ngay wax boroom xel yu sell yi tey xalaat ñooñu ngay waxal macha allah rabbi mu doon loo am solo niveau 2 bi buñ ko déggee moom ci ban niveau war a dox moom niveau 2 ñu ngi ko tuddee miracle tuddewuñ ko miracle nag c'est parce que dañoo dégg miracle miracle rek mm-hmm. mais matière bi ñu koy liggéeyee moo miracle mm-hmm. matière bi ñu koy liggéeyee new na sëriñ boo xam ne da nga koy laaj garab boobu nu mu tudd mu woon la ko heure boo demee ci àll bi boo ko gisee ni nga ko fekkee tey bu subaa doo ko fekkee noonu mm-hmm. garab buy soppeeku la moo tax doomu aadama bu mën a doon boo ko jëfandikoo faw niveau bu mu la fekk da koy changé waaw miracle la tudd niveau bu mu la fekk da koy changé moo xam ban métier nga yore moo xam ban business ngay def moo xam nu mu mën a doon ci kaw suuf nga di ko yëngatu mm. waaye soo ko jëfandikoo dafay changé sa sa sa tolluwaay bi mu la fekk. maanaam bu la ko ëpp parce que moom miracle la. waaw miracle la soo ko déggee mooy toujours la nga ca foog rek ko gën a kawee nga cay fekk waaw ndax matière bi ñu koy liggéeyee dafay soppeeku yàlla euh, maa xalaqta haadaa baatila mm. maanaam soo gëstoo dëgg dëgg ci ngay doog a dégg alxuraan mm. moo tax ñun suñu xam-xam dëgg dañ koo jël wéeru ko ci xam-xamu science. waaw ñun suñu xam-xam euh, dama bëggoon ñu weesu bind ak maas rek parce que doomu aadama bi lépp lu yàlla indi ci kaw suuf pour mu jariñoo ko war na caa gësu gësu bu gën a xóot pour mu xam lii naka lañ koy jariñoo amul lenn loo xam ne lekk suur rek lay jëriñ wala naan mandi am na leneen lu ca nekk loo xam ne soo ko gëstoo rek yàlla mën na la koo leeral waaw niveau de boobu muy miracle matière bi ñu koy liggéeyee dafay soppi ay mbir même moom bu fekkonte nii da ngaa fekk euh, ñu liggéey ko ba pare nga jël ko jëfandikoo ko noonu te àndut ak saabu faaw si ay mbir dana soppeeku saabu yi nag li tax ma def ko noonu jaami yàlla yi nga xam ni li ëpp waa bitim réew yi ñoo ma ci gën a puus danaa yónnee nit dara mu téye ko juróom benn weer woo ma ni ma ah li nga ma joxoon ba léegi mënu ma ko jëfandikoo ndax fi ma dëkk wala nangam nga xam ne dañuy préféré nga leen wutal yeneen programme yoo xam ne moom la jëfandikoo mm-hmm. waaye nag su fekkente ne mbir mii nga xam ne moo nekk saabu bi pour nga jëfandikoo ko mun nga koo teg sa douche doo ko fàtte. sangoo ko da lay setal. musal la ci lépp loo xam ne dafa nekk ci ay taas sa yaram. ba pare boo ko sangoo la taxoon nga jënd ko muy mbirum baatin nga fekk ko ci. waaw surtout na ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew di yëngatu ci. liggéey jafe leen lool mm-hmm. wala ñuy jaay pour ñu jaral jafe leen lool mm-hmm. wala ñu nekk fa tamit dekk ay jigéen yoo xam ne dañoo demoon di daani seen doole bëggaale fa borom kër te mu jafe leen mm-hmm. wala ñuy wut ay kayit pour mu jafe leen leen may sens pour li nga xam ni moom la ñuy toppatoo yàlla yombal ko niveau de bi moom ci loolu lay dox jërëjëf El Bachir mu doon lu am solo wax nga ko léegi daf ci bëri ñoo xam ne suñu bokk yi nekk bitim réew saa su ne bu may def jotaay dama koy sama xel day dem ci ñoom ndax da ngay gis ku ci yónnee sëriñ alal ju dul jeex ëlbatiku sax di woo sëriñ ba dootoo ko jot fi mu nii daanaka li ñuy naqarlu ci sëriñ dafa dafa dafa dafa jiggi dayoo te te te dem nañ ba métier sëriñ mi mooy li nga wax loolu ñi ko defoon métier ñëpp tey ji yàq nan ko waaye mooy ku dégg li nga wax ne am nga métier mooy am nga sa fondement am nga sa base boo xamante ni mi ngi lay teral ba noppi lii natt bu la yàlla teg la ak bëgg dimbali jaamu yàlla yi tax nga dugg ci di ko gëstu ba mën a jëriñ doomu yi moo tax nga dikk ci nga dugg ci te dëgg gëm waxi suñu borom ja mooy gëstu moom dafa war a jaam bu ne saa su ne ci waxtu wu ne ci lu mu mënte ne rawatina nga dugal ko ci wàllu science parce que science mooy kat kuy gëstu pour mën a trouver wax nga léegi baat bu doy waar muy lekk ak naan rek warul yem ci lekk ak naan warul jëriñ lekk naan rek te pourtant nit ñi fi mu ne lekk naan jàpp nañ ñi fi ne suur rek la leen war a jëriñ rek rek. pour lu lay leeral loolu. maa ngi am fi benn médicament traditionnel boo xam ne li ko tax a jóg mooy fausse couche maanaam jigéen ñi nga xam ne ñu dafay avortement nga xam seen doom day judd te judd jotul. wala wala seen deret tuuru. wala ñu romb am wala ñu war a mucc. te loolu yëpp euh, man li ma ci yàlla dimbalee. Hmm. ma di ko defar pour doomu aadama mën koo jëfandikoo ba ëmb mu mat normal nga xam ne soo ko jëfandikoo waatul sax doo mën a am doom mm. parce que dafay centré ëmb bi de trop euh, garab boobu liñ koy liggéeyee amaana yow mii sax tey añ nga ci wala wala wala wala moom ngay pour nga xam ne lekk du jëriñ lekk ak naan rek waaw ñaari matières yi ñu koy liggéeyee mm. benn bu ci nekk yow soo duggee ci marché bi da nga ko romb jigéen ñi di ko jënd jigéen ji nga xam ne tey mm. moom la ëmbam tuur garab boobu moo koy jox pour ëmbam bi bañ a moom mën naa moom la togg añ tey waaw waaw mën naa moom la togg tey waaw pour nga xam ne rek euh, lekk ak naan jëriñul lekk ak ñaan waaw yàlla dafa am yërmande ci doomu aadama ba nga xam ne soo gisee nag science lu mu gën a avancé baatin gën a réer hmm. baatin yàlla daf ko fi indi woon ngir dimbali doomu aadama yi rek hmm. waaye lu science gën a avancé ñuy gën a découvrir baatin gën a réer kon nag li ma bëggoon mooy ñu jëlee xam-xam bi ci baatin hmm. indi ko ci saayir pour ñëpp mën koo jariñoo ndax da nga dem pharmacie jënd fa garab boo xam ne dafa lay fajal dara te xam ku liggéey moo taxoon nag ma bëggoon mboolem sëriñ yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal te xam dara mm-hmm. état bi encadré leen mm-hmm. bu leen utalul benn ministère tamit mu utal leen fu mu leen taf mm-hmm. nga xam ne ku ca soxla dara foofu ngay dem boo demee waxtaan présenté wu joxe li nga am ni lii kat laa amoon laa bëggoon ñu jàppale ma ma liggéey ko ngir doomu aadama mën koo jëriñoo ndax am na ñoo xam ne bëgguñoo faju fajum tubaab am ñoo xam bëgg nañ ko waaye amuñu njëg am na ñoo xam ne tamit seen sens néewu ca ndax li leen gàllankoor du fajum tubaab kon nag suñu encadré ñi nga xam ñoo nekk Sénégal di ay borom mi xam-xam te xam-xam bi naari soxla nañ ko tubaab yi soxla nañ ko ndax dañ fiy yónnee dañ fiy ñëw nit ñi tam dañ koy génn di ko yóbbu bitim réew waaye ñi ci ëpp ci doomu aadama yi dañ koy yóbbu dañ koy nëbb wala dañ koy làq léegi nag fex woon ba état bi organiser leen ko tegal leen ko ci ay loxo yu wóor comme yii ma liggéey nii dañ koy jële fii di ko def ci ay colis di yóbbu bitim réew CP yi dañ koy jël di ko yóbbu duñ ci am benn problème te it bu fekkonte ne na nga ko yamale ci bind ak tey boo ko bëggoon dugal Dubaï problème lay doon boo ko bëggoon dugal Arabie Saoudite problème lay doon jeex na léegi nag man moo taxoon ma bëggoon toujours ñu jëlee ko ci baatin rek indi ko ci saayir te lépp loo xam ne ayib alxuraan daf koy faj yàlla bind na garab bu koy faj lépp lu ayib alxuraan di faj rek yàlla indi na garab buy faj loola ba indi laneen loo xam ne sax ba léegi nit ñi guñ ko ci alxuraan parce que alxuraan dëgg dëgg dëgg dëgg alxuraan soo koy jàng dafay mel ne xol moo ko tax a faj xol maanaam defar doomu aadama ba mu nekk nit xam kan mooy yàlla am yërmande ci moroom mi jaam yàlla mi moytu lu bon di def lu baax su ko defee la ca des na nga dem gëstu ji ko ci wàllu garab mm-hmm. ak wàllu suuf ak wàllu ndox mm-hmm. ak wàllu ngelaw mm-hmm. yooyu mooy yi nga xam ne su ko doomu aadama peegee man na faj ay aajo ci loo xam ne da koy mën a teg ci bërëb nit jël ko man bëgguma rek nit koo xam ne dafay sol benn grand boobu rëy taxaw fële nga dem jox ko téeméeri junni un million bu subaa nga koy woo doo ko jot di ko seet doo ko gis li ma bëggoon xam-xam àgg foo xam ni lu waay yittewoo am na béréb boo xam boo demee jënd ko jëfandikoo ko sa aajo faju kenn du xamal dara ndax am na kilifa yoo xam ne toll nañ foo xam ne sax bëgguñoo génn di dem fenn kenn di leen gis waaye tey su fekkente ne xam nañ loo xam ne béréb sàngam ñuy yónni ku leen ko jëndal rek ñu dem jëfandikoo ko seen ajo faju kenn du leen xamal dara te loolu xam-xam yegg na foofu waaye xam-xam boo ko tënkee ci faaw rek nit ki ñëw ne la nangam nangam nga bindal ko maasal ko jox ko du sotti il faut ñu jariñoo li ñu yàlla indil ci kaw suuf te muy ay xam-xam ñu jariñoo ko te jariñoo gi tant yaa ngi gën a xoos gën a gëstu yàlla di la gën a xamal parce que ñi nga xam ñoo liggéey avion yi wala ñu liggéey oto yi wala yooyu amuñu xam-xam de li tax amuñu xam-xam mooy yërmande yàlla moo àgg ci bëggoon avion am ngir ku bëgg a dem màkka dem ku bëgg a dem ci distance bu gën a jege dem léegi nag ña jóg di ca jéem yàlla jàppale leen mbir ma sotti xam-xam noonu la da ngay jéem rek boo jéemee gëstu xóotal sa gëstu essayé yàlla dimbali la dafa la ci tawfeex ba li nga bëgg nga mën ko ci am wax dëgg yàlla fi mu toll nii man fi mu ne daanaka damaa géejal te te émission bi jotaay bi tàmbaleegul <laughs> waaye damaa tàmbalee géejal damay waxtaanee sama benn xarit bërki démb muy xool kiri kiri ji oto ne ma xoolal kiri ji oto yow attan nga ko ma ne ko waaw mu ne waaye attuna oto bi xoolal kirij boo ko dugalee ci suuf oto bi mu yanu oto bi yëkkati ko ba nga def ci loo bëgg a def nga wàccee waat ko yëkkati ko yóbbu ko te ba dee mënugoo yëkkati oto ba kon lam ma wax noonu day daal di dikkaat ci lii nga ma indil nii nii <laughs> Mohamed El Bachir maanaam daal nga xam ne doy na waar te te te jamono moo toll foofu ñu war a jëlee baatin bi ci indi ko ci science pour mu tolloo méngoo ak jamono fi jamono toll ngir doomu aadama yi mën cee jëriñu macha allah rabbi wax nga ko léegi ci miracle de miracle lañ tolloon mu des troisième bi waaye dugal nga ci sax beneen boo xam ne moo waroon doon cinquième question bi waaye indi nga ko muy wàllu soxna yi seen ëmb yi di tuuru wala ñu def fausse couche couche incha allah rabbi mais bi nga xam ne moo topp ci miracle ndax nee naa miracle moom gannaaw lañ ko liggéeyee. boo ko amoon te du saabu bi sax mu mën a jële la ci niveau un yóbbu la ci niveau dis rawati nañu def ko ci saabu boo xam ne boo ko sangoo mu defar saw yaram yokku sa yokku say leeral musal la muccal la ba noppi def ci yow miracle boo xamante ni ku la xamoon daaw bu la xoolee ren dina xam ne am na yokkute gu ne ci yow am na changement boo xamante ni nekk na ci yow kon defe naa loolu taw féexal niveau trois bi ba niveau la ñu door a dugg si ci fausse couche bi ak li nga xamante ni mooy li réew mi muy ci wàllu spermatisation muy wàllu góor ñi ci ngóor ak yu niveau 3 bi ñu ngi ko tuddee ouverture totale soo gisee même noo yi ma am ma xaw ko séddoo ak tubaab yi maa ngi ci jublool pour ñu ñimee ni ñuy def ñoom waaw parce que am na koo xam ni diineem daf koy aaye sax pour mu jëfandikoo alxuraan te xamul ne garab gi ñu koy jox alxuraan waaye am na koo xam ne diineem nangu na pour mu jëfandikoo alxuraan waaye diineem nanguwul mu jël alxuraan ko jëfandikoo ci douche waaye lu mel ni mbirum garab gàncax boobu mën nga ko jël jëfandikoo ko ci fu la neex am ci ni nga ci bëgg te doo am daani yàlla doo am benn jafe-jafe euh, niveau 3 bi ouverture totale la tudd loolu daf lay ubbi ci lépp loo man di yëngutu ki nga xam dafay def basket kii def football ki nga xam dafay jaay ci marché bi moodu moodu biy tukki ki nga xam dafa bëgg mbirum këyit ki nga xam dafa bëgg borom kër mu jafe ko ki nga xam dafa bëgg soxna mu jafe ko ki nga xam ni dafay wut liggéey mu jafe ko moom dalay jox sens daal ci lépp loo xam ne yaa ngi ciy yëngutu ñi mu gën a yitteel dëgg nag mooy businessman yi nga xam ne lu ñu gis dugal ci seen loxo mm-hmm. mooy ouverture totale waaw loolu moom moo ko tax a jóg maanaam dalay ubbi ci wet gu ne soo ko dee jëfandikoo yow ci sa bopp da nga sentir ni lii ngay jëfandikoo mm-hmm. te li ci gën a yéeme mooy doom bépp doomu aadama boo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo mm-hmm. matière bi ko liggéeyee matière boobu tey soo amoon doom jullee suñ ko joxee mu naan ko da nga ko yërëm léegi ci toogaay bi bàyyil li ngay def ak toogal ak yooyu yëpp yàlla dox ci musal waaw loolu it dinañ ci ñëw moom itam beral ko yu boppam pour ñi nga xam ne dañuy am doom bëgg koo yar mu tëleen wala yu mel noonu ñu jox ko loolu Serigne tubaa doon wax ci xasida Mawaahibu nga xam ne dafay bëgg nit ki jub yaru te du jooy loolu baatin moo koy def waaw mooy ba tey baatin bi may wax rek dama bëgg ñu jële ko ci baatin indi ko ci saayir nga xam ne doomu aadama dana ko mën a làmb xam ne lii nangam la mu jël ko jëfandikoo ko ajoom faju waaw niveau trois bi mm-hmm. ouverture totale la tudd mm-hmm. dafa lay ubbi ci bépp bunt boo xam ne euh, am nga ci yéene pour dëgmal ko mm-hmm. yàlla ubbi la ci da nga koy jëfandikoo rek di gis mbir yoo xam ne jafewoon na la muy yomb gis mbir yoo xam ne yaa ngi ko daan bëgg di ko lijjanti muy të muy ñëw ba ci say loxo waaw moom ouverture totale bi moom loolu mooy mbiram. ba pare li li ci gën a rafet mooy pot bi pot bi pot bii mu nekk nii moo rafet lool wax dëgg yàlla ndax pot bi bu ma ko xoolee itam euh, ñun xamal léeg xalaat mu bëri daf ñu sonal maa ngi gis ni couleur yi ko meng mooy pot bi pot bu weex la am na dessin bu verte ak bu jaune muy produit yi waaye mbind mu noir donc couleur yooyu may gis noonu dafa am lu may ci lu may ci lu may indiwaat. waaw xam nga mbirum couleur bu boobaa da ngay delluwaat ci mbirum lasraar ak yooyu. couleur ak chiffre dafa nekk mbirum lasaraar maanaam boo demee ci euh, lasaraar ba fausse couche bi ma doon wax léegi ci wàllu kii bi bu ñu egsee gën a xamaale maanaam mbirum chiffre waaye mbirum couleur tam dafa am ay couleur yoo xam ni soo des fois nga dem ci ab sëriñ nga am taab mu fasal la wuñ bu weex wuñ bu xonq wuñ bu ñuul tey wuñ bu xonq bu weex bu ñuul boobu am na lim yoo xam ne boo ko ci amoon tariwoo ci dara nga jox ko nit ki mu takk ko tab bi dafay bënn wala mu rees parce que couleur yi moo koy def parce que couleur bu weex bi mooy tax su fekkee yëf yi weesoogul fu mu war a dëppee couleur bu weex boobu moo koy dëpp mu dëpp ndax weex moom jàmm rek bu fekkente ne dafa weesu fu mu war a dëppee couleur bu xonq boobu moo koy gaawal ba tey su waroon a bënn fii ak une semaine mu def ko ñaari fan moo koy togg mu gaaw a gaaw a gaaw gaaw a bënn mooy rouge bi bu fekkente ni nag euh, euh, couleur bu noir bi la mooy tax borom mën a résister mën a am kàttanu dékku li nga xam ne moom la rouge bi di togg pour mu gaaw ba métti bi du ko yëg mooy tax nga gis nit takk benn fas rek tey bu subaa taab bi bënn wala mu rees ñetti couleur yooyu benn bi ci ne daa am lu mu war a liggéey su fekkente ni weesoogul fu mu war a avancer blanc bi rek mooy liggéey su fekkente ni dafa weesu fu mu war a dëppe rouge bi rek mooy liggéey noir bi moom dafay taxaw rek di xaar ñoom ñaar lu ci waaye di def rek mu jàppale la moo tax mbirum couleur dafa nekk lu xaw a doy loo xam ne soo ci duggee da ngay duggaat ci li may xaw a bañ mooy mooy mooy mbirum bind ak maas waaw waaw. am na solo mooy li may wax rek xelal ñu sonal dañuy gis man damay topp pot bi damay tëdd léeg-léeg sama kër ba yàgg xool pot bi di xool pot bi ndax yi ma ci yor bi ma ci yor bu ma duggee ci bu wane ba sangu ba noppi dama ko fonk loolu bëgg ko loolu ndax am na loo ma ca waxoon te gis naa ci lu ko raw loolu maa ngi koy séddal suñu borom. wallahi lazim maa ngi koy seedeel suñu borom te te man jotaguma yëpp benn rek laa mosagum waaye ci diir gu gàtt ci diggante ñetti fan jàpp juróomi fan gis naa ci gis naa ci soppiku goo xamante ni jéggi na dayo mënuma ko seedeel ku yàlla bind yàlla xam lépp lu mu ñuy may soxla wuñ ko yàlla xam na ko loolu ma ca waxoon man maa ko gis te ñi bëri na ñoo xam ne xàmmee nañ sama kàddu xam nañ am na ci yoo xam ne neewu ci kon lu ma wax lu ne rek gëm naa ko ndax li ma wax rek ba ma shay'in illaa maa alimnaa te Sëñ Tuubaa dimbale nañu dimbali goo xamante ne nii rus na ñoo toog di defal promotion doomu aadama waaye yow bañ la xamee ba tey ji dañ la mujj jël def la suñu jur ndax loolu nga ñu wan kilifa teef nga ñu wan wan ñu ak sell wan ñu ak cër ba noppi oyof lool ndax ku la fekk fii bu la neexoon tey ji toogaale nga loo xam ne bu la neexoon yëkkati sa mag soli garam boobu mm. bi ma la xamee ba léegi mosuma laa gis nga sol garam boobu far mm. waaw kon <laughs> xam li ngay wax ni moom mm, suñu borom xam na te borom xel mu toog di ko seetaan déglu li ngay wax dina xam ne li ngay wax moom macha allah mucc na Sénégal da ngay xamee a sëriñ ci ay yére man traversé naa ay réew yu bari traversé naa ay réew yu bari fu mel ni Gambie def naa fa ñaari jaar naa Mali jaar naa Burkina jaar naa Bénin jaar naa Nigeria euh, Cameroun def naa Gabon sept mois yooyu yëpp dangay gis kilifa yi ñu fa gën naw ñu nekk ay sëriñ ñu sol seen i casquette sol seeni jiin jean sol seen i mais ñoom seen karaama du actuel ñoom résultat la foofu laa bëggoon nag sénégalais yi nga xam ne ñooy ñooy ñaanlu ñu yeewu bañ a xool nit ci actuel waaye fi ne àgg na ci naxekat bu bëgg a naxe sax da ngay dem fale abu grand boobu rëy fexe ba dajale alali jàmbur yi buñ lay woo duñ la jot buñ la xool ñoo gis man nekkoon daaw ak daaw jéeg ñaar at ak nangam yi def Dakar yëpp neex laay jaar fu ma neex laay dem ñi ma xam it xam nañ ma ñi ba may nekk di yor sama métier di ko liggéey mm-hmm. ñu ma daan soxla lañ ma daan fekk te fa may liggéeyee mm-hmm. des fois ñu fekk ma ci bunt bi may bale mm-hmm. ñu laajte bañ ñi kee la ñu taxaw di ma xaar ba ma pare ma ànd ak ñoom dem kër ga defal leen la ma leen defal dellusiwaat fa may liggéey damaa dem ba liggéey bi may liggéey nag àndatul ak lii parce que dafa loo xam ne ak jot moo koy moo koy maye mu mujj nag mu indil ma jafe-jafe ndax lenn lu ci nekk temps lay laaj lenn lu ci nekk mbirum mbooloo la te boo bëggee boole ñaar yëpp dafay mujj yow ci sa bopp dootoo doon nit carrément loolu rek moo tax ma mujj bàyyi la le euh, continuer ci lii ak nit ñi ma ci yaakaar pour di leen ko dimbalee waaw jërëjëf Mohamed El Bachir ñaan rek sama borom doole guddal saw fan te gën a wéral say cër euh, yëgali mboolem yéene yi nga ne naalal nga ko àdduna wërngal këpp ndax du ma ne askanu Sénégal ndax li def nee naa gannaaw yamatul ci sénégalais waa xonk nopp yeeg naar yeeg ku nekk nga ci laal kon àdduna wërngal këpp képp kuy jaamu yàlla daal bëgg lu baax tey njëriñ te bëgg jëriñu defe naa ne bu jëflante ak yow incha allahu rabi taala ndam mën na ko cee jële macha allahu rabi bala ñuy jeexalee waat ci suñu mbokku jigéen yi li lëmbee réew mi nga xamante ni mooy wàllu spermatisation wàllu ngóora ak yu ni mel nga am loo ci génne lu mucc ayib ci gëstu yi nga xam ne yaa ngi koy gëstu moom laa bëggoon nga wax ñu ci présenté ñu ko ak parce que bu ma la diggee bu baax toujours di nga wax cause yi yaa ngi wax tam euh, ku wax cause ne conséquence parce que solution day am à la quelle que soit alpha solution day am kon loolu itam laa bëggoon nga ñëwoon ñu suñu door a tëjee ci li nga xamante ni mooy suñu wàllu jigéen lu jëm ci wàllu expert euh, fii Sénégal ñaare bu sëy amee rek bu jafe-jafe mbirum doomu amee rek faaw dañuy wax ku jigéen ki na dem faju ji bokk na ci li gën a tardeel njaboot ci wàllu sëy mooy jigéen gi rek mooy faju ji fekk góor gee feebar ndax góor gi moom tànk mi ngi mën a jaxasoo mën a génne dara rek pour moom feebaru te fekk ni feebar bi moom la wàllu expert la góor ñi nga xam ni yàlla dafa dogal ñu ngi sëy te mënuñoo am njaboot ñoom ñoo tax ñu defar ko da ngay dem ci urologue mu bindal la kayit mm-hmm. nga dem institut Pasteur def test bi analyse bi ñu wax la carrément sa expert bi moo am problème mm-hmm. bu boobaa kayit boobu rek lañ soxla mm-hmm. ban niveau nga toll yow cinquante pour cent la wala soixante dix pour cent wala wala dix pour cent bu ko defee ci loolu lañ ci sukkandiku pour defal bi ba bi àgg ci expert bi yi nga xam ne moo a am doom donte yàlla moom mooy joxe doom ndax da nga gis góor goo xam dafay wér gis jigéen goo xam dafay wér loolu moo tax bëgguñu cee làmbatu ndax da nga gis góor goo xam day wér dara jotu ko jigéen goo xam day wér dara jotu ko waaye yàlla dugaloon njaboot seen diggante ñoom ñaar buñ teqale ko kii sëy fa am doom kii sëy fa am doom mm-hmm. il faut ñu comprendre tam am na diggante yoo xam ne yàlla dugalu fa njaboot moo ku góor ki day mën a am ku jigéen ke mën a am waaye ñoom ñaar mënuñoo am tudd ko léegi nag pour loolu bu fekkente ni pour bañ a làmbatu il faut mu dem xool mm-hmm. bu demee xool bañ xam carrément ni kii kat problème experme la am mm-hmm. nga xam ne maanaam du néew kàttan du du dara experme bi moo baaxul ñu doog a sukkandiku ci kayit boobu defal ko traitement bi loolu li ma la doon wax léegi ci maa xalaxtu ala batil amul lenn loo xam ne yàlla daf ko bind pour caaxaan ñaar yi koy liggéeyee maanaam yow li ma leer mooy am nga ko sa kër te te te mën na maa waat ni añ bi nga añ tey am na benn bi am na ci waaw parce que benn bi miel la mais beneen bi ci des moom jigéen ñi dañ koy togg waaw te lem moom ñaari néew na góor goo xam ne amu ko këram ndax dañ koy soxla beneen bi ci des moom jigéen togg moom lu mën a togg lu laax rek dana ko ci def lu mën a toog lu fonde rek wala sombi dana ko ci def waaw pour ñu xam ni rek euh, yàlla amul dara lu mu fi indi rek pour ñu lekk suur li ñuy lekk amul ci dara biñ commencé nag di am yu ñuy jëfandikoo ak ñu ñuy bàyyi moo tax sax lii duñu dal bu njëkk suñu maam yi dañ daan def soo amee benn soxna am jafe-jafe njaboot dañ lay dolli beneen boo amee jafe njaboot ñu xam yow yaa am jafe-jafe yow ci sa bopp bu fekkente ni bii mujj ñëw am na ñu xam ne bu njëkk bi daa am problème bu ko defee nag ñu dem faji bu njëkk bi ki ñuy faji waaye léegi science wees na foofu man am naa ñoo xam ni daanaka dañuy marié ay 4 mois 5 mois gisuñu luñ xam ñu ñëw boo defee buñ demee def test bi xool xam ni ñoom ñoo xam problème problème expert mu jar bu sax daanaa ko jox ay nit te duñ dem di seet waaye comme science àgg na ci foofu te it bëggumay faj nit ba mu yàgg mu dem ba mu yàgg ni wérul te fekk liñ koy faj da koo dalul woon moo tax waaye bu lee c'est sûr que problème expert la liñ mën a assuré mooy suñ la joxee traitement bi nga jël ko ba pare soo fa nga xoolloo woon buñ la xool laata dañ ne la yokk na hmm. nga xam da nga àgg ci niveau cent pour cent bu boobaa nag euh, bari na ñoo xam ne fi ñuy xamee ne ñoom wér nañ du hmm. caagin dañuy delluwaat waaye diggante bu gàtt dañuy gis seen soxna xam ne soppiku na boobaa ñu xam ne wér na hmm. bu fekkente ne nag soppiku amul ci diggante bi ñaare bu ñu xoolee seen soxna day fekk dafa am kyste wala mu am fibrome wala nangam bu ko defee ñu faj ko buñ ko fajaree da ngay daal di gis ne yàlla dafay def tawfeex ba ba ba ba ba liñ ci bëggoon ñu am ko waaye garab la daal boo xam ni euh, bëggoon naa mu gën a yaatoo waaye ak ay moyens yu ñu koy liggéey ndax liggéey bi dafa xaw a metti ba pare euh, machine yi nga xam ne moo koy fabriqué euh, benn bi sama benn xarit moo ma ko jëndal Dubaï beneen bi ci des man maa ko fabriqué lu fii Sénégal mais am na nu mu doon demee ba ba ba moom gën a yaatu. Mm. te bu boobaa tamit honneur Sénégal lay doon ndax tubaab yi amuñu garabam conseil rek lañ am mm-hmm. lekkal li bàyyi li wala ñu def. porteuse maanaam jël expert bi defal ko ko jigéen loolu lañ am waaye jël garab bi wér hmm. seeg sa soxna mu ëmbal la doom nga am ko hmm. loolu tubaab bi amuñu garabam nga xam ne lii lii rek lu Sénégal mënoon a dëgg la hmm. du doon njariñul sama njariñ kese boobaa ñëpp dañuy ñëw di ko jël si fii Sénégal xam ni euh, solution bi Sénégal la feeñ te it li ci gën a yéeme mooy du benn waay bu mën a bind turam sax ci tubaab benn dongo daara la rek boo xam ne yàlla may na ko mu gëstu ba ba yam ca waaw pour nga xam ne rek lépp loo xam ne jàngoro la wàcc yàlla wàcce ko ci kaw suuf wàcce na saafara si nga xam ko wala nga bañ koo xam jërëjëf Mohamed El Bachir wax dëgg yàlla li nga doon wax rek mooy appel bi nga ubbee woon sànq rek tey ji état toll na fu mu a dajalee ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi wala ñi koy woote woo kenn ku tëjee am gëstu bu ñu def tes yu ñu def yoo xamante ne la nga mën ñu xool nu ñu lëkkalee loolee lépp leen lu ci ne ñu fexe ba tey ji mooy ba mën a am suñu pharmacie bopp parce que boo xoolee fi mu toll nii mbooleem garab yi fi yi ñuy jaay ci pharmacie yi lépp dañu koo jëgaani ji amul dara lu ñu fiy defaree te tey ji na te lañ koy defar yëpp li ci plante yi mooy li nga wax leen li dinañ plante yi fii lañ koy jël ci Sénégal li ci def ñu jëlee ko Afrique du fenn fu ci ne kon yelloon na tey ji ñu état parce que li ngay wax ni Mohamed El Bachir dama mos a benn séminaire boobu Eva Marie Coll Seck moo nekk ministre de la santé séminaire bu mu def ma ne ko madame la ministre mu ne ma ne ko tey pour nga am ndam ci santé Sénégal faaw nga boole ñaar yi da ngay cumuler médecine moderne ak médecine traditionnelle parce que dafa am loo xam ne mu ne ma ne ko day dal doomu aadama to médecine médecine moderne du ko gis am luy dal doomu aadama te traditionnel mu rek moo ko mën a gis mun ne amal ko kon pour nga am ndam faaw nga boole ñaar ñi léegi nag organisation la laaj ak ay test ak lu ko mën a couvrir véhiculer ko te loola ma ko waxoon 2018 la def at ba année yooyu teg nañ ci ñaari at mu door a waaj nga confirmé waat ko kon parce que jamono moo toll foofu liggéey bi moo toll foofu dafa yàlla macha allah waaye baat yi kaddu yi nga génnee ñoo ngi ñaan ñi jiite nguur gi yàlla na ko dégg. ba mën cee jóg taxaw ci def ci fulla ndax bu boobaa honneur u Sénégal lay doon parce que gannaaw lépp dañ koy jëggaani bu boobaa ñun nit ñi danañ jëggaan si dara fii ci suñu réew macha allah rabbi ñuy sant bu baax tey ñaan sama borom yëgali mébét yooyu yëpp ci dara yonent Yàlla Muhammad kon nag xam naa ñun ñoo ngi tàggoo foofu rek euh, wàcce suñu kàddu di xam ne ni njariñ la loo xam ne dañ ko indil doomu adama yëpp am na yeneen yoo xam ne dañoo mënul génneendoo yëpp waaye lu ñu gën a rek chaque jour ñu indil leen lu bees loo xam ne mën nañ koo jëfandikoo fi may woote daal mooy foofu dama bëgg ñu am suñu pharmacie bopp boo xam ne koo xam ne lii la gëm bëgg cee faju te wërsëgam bëriwul noonu mu mën a dem faju ci jàmm ak salaam te du am benn problème parce que ñëpp d'accord nañ ni euh, liggéey rek mooy tax nit ak fenn fi waaw te su xam-xam bu leer la boo xam ne suñuy maam ñoo ko fi bàyyi woon mën nañ koo jëfandikoo garder ko ba du réer te nit ñi mën koo jariñoo asalaamaaleykum wa rahmatullah maaleykum salaam wa rahmatullah Mouhamed El Bachir wax dëgg yàlla sant la bu baax a baax gërëm la ñaanal la yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moom mi am sañ mën tey def mu dolli laa taxaw dolli guddal fan wi gën a wéral cër yi ba naal yi nga naal yëpp nga yëggale ko ak sago te nu fekkee ko tànd kook yow itamit te mu jëriñ tam mbooleem askan wi nga xamante ni wax dëgg yàlla ñi lay déglu wala ñu lay seetaan ci jamono bi sant itam bu baax a baax mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ñuy topp à travers suñu euh, bu mag bi nga xam ne mooy Salam Vision waaye itam ci chaîne YouTube bi nga xamante ni moom itam fa lay jëkle jaarale gëstoom yu bëree bare bëri bëri muy Albachir TV bu ngeen fa duggee tam lépp lépp lu ngeen soxla di ngeen ko fa fekk lu ngeen fa lu ngeen bëgg tamit xam bu ngeen fa defee ci commentaire bu ngeen ko fa bindee incha allah rabbi moom it dana ci te incha allah rabbi dana dana ci def ay faram leeral yoo xamante ni da ngeen am lu lu mucc ayib loo xamante ni dana dal seen xel kon sant bu baax a baax gërëm ñëpp ñaanal ñëpp sama may ñu ñu fekkee waat ak jàmm ak salaam ba mën a defaat yeneen jotaay te liggéey bi tam gën a yaatu te gën a kawe jot ci daraja yonent yàlla Muhammad wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. maa nga jëm Parcelles Assainies unité 21 en face terrain basket bi dem seeti Ahmadou Bassirou Ndiaye Ngéraan borom bi may ko lool ci xam-xam xam-xam boobu nag mu ci dimbali nit ñi mu daal di leen defaral ñetti ubbeeku yoo xam ni da nga koy sangoo maanaam mu di ay saabu yoo xam ni am na ñetti niveau boo xam ni saabu bu njëkk bi day def ci yow ubbeeku. tëkku ba noppi def ci yow protection ndax yéen ñëpp soxla ngeen protection ñaareel bi dafa lay ubbi ba noppi indi la wërsëg ñetteel bi nag mooy niveau bi gën a kawe ñetteelu saabu bi ubbeeku bu leer nañ ba noppi nag àndandoog li nga xam ni liy dugg sa loxo day des ci sa loxo di toog ci sa loxo kon Ahmadou Bassirou Ndiaye li la yàlla may jëf ci ni ko bokkeeg jaam yi na nag ñi nga xam ni dañoo am problème mu njaboot nga xam ni nag ay góor lañu am nañu kàttan waaye mënuñu am doom mu dimbali sëy du ñu am doom ñu ne rek ku jigéen ki la fekk yow ku góor ki daa war a faju kon ñëw leen seet si Ahmadou Bassirou Ndiaye mu jaaral leen ci produit boobu muy wax la Nasirullah Nasirullah nag dina la traité bu baax yow ku góor ki nga xam ni koo jege rek di nga ca mën a am njaboot Ahmadou Bassirou Ndiaye ngiraan Parcelles Assainies unité 21 janoo ak terrain basket bi téléphone 76 589 93 67 wala 78 469 24 30 Bienvenue sur Salam Vision.